mbokk internautes yi daleen ak jàmm ci manifestation Sonko ak Adji Sarr di ay xeexoo yi nga xamante ni nag amoon na ci diggante nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi ak ñi nga xamante ni nag ñoo nekk militant Sonko yi nga xamante ni nag dañ doon daal di xeexal ngir ñu bàyyi seen leader bi nga xam ne ab a damm ne lañ ko daal di daaj ci nit ki euh, keroog moom mi nga xamante ni nag euh, ñoom ñooy nag policiers yi dañoo daal di xibaar ne nag benn xibaar goo xam ne daf fi rot ne euh, dañuy jot ay prime nag sasu su ne prime yoo xam ne dafay wane ni euh, rek euh, ne dañoo war a euh, daal di nag demoon ci ab mission goo xamante ni muy ñetti fan di yoo xam ne muy sànni lacrymogène yi nga xam dañ ko doon def daal ak jàmmarloo ba ñenn ñi sax jotatee am ñoo xam ne faat nañ leen ci nag gis nañu ñoo xam ne dañoo daal di utiliser nag ay nag pistolet yoo xam ne dañ ko doon jël nag di ko tirer ci ay manifestant ba ci sax kenn koo xamante ni dafa nekk fële nga xamante ni moom mooy nag ca diwaanu parcelle muy Cheikhouna Ndiaye ñu gis vidéo bi nga xamante xamante ni moo ko daal di nag euh, faat foofee nag di benn policier taxawoon ci benn euh, ginnaaw benn pick-up vidéo yi tas ñoom ñooñu daal euh, maanaam ci la gàttal nag ci la état bu Sénégal jël nag xaalis teg ko ci seen loxo di leen primé maanaam daal dañ doon sox ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal ba noppi nag ñu leen di neexal di leen jox ay prime de mission goo xam ne tool na ci trente mille francs CFA yoo xamante ne jot nañ ko daal di jot muy loo xamante ni nag ku ko dégg rek mu yéeme lool ndax nag am yoo xamante ni nag saa bu réew bi jaxee dañ leen a war a daal di nag génnee ñu jàmmaarloo moo waral seen formation waral itam li tax ñu naan homme de tenue waral tax nit ci respecté li muy wàllum tenue boobule ñoom ñi nag ñoo daal di ëlbëcikuwaat di jàmmaarloog askan wi di leen sànni ay lacrymogène gaañ ci faat ci ñu bëri ñoo ëlbëcikuwaat état bu Sénégal amul lenn lu muy def te li wàccoon ci takk der ni ki nag keroog ci région yi ci Dakar ak ci fépp ci Sénégal nag ku ci nekk ñu bëgg la tàllal nag waa ticket de dix mille francs muy trente mille francs xaalis boobu amoon na fu mu xàcc benn waroon nañu ko mën a sax daal di jël yóbbu ko nag ci victime yi yenn ci veuve yi a ki tamit yi nga xamante ñooy njabootu ñi daal di lorule waaye defuñ ci lenn lu dul neexal ay policier ngir ëllëg nag ñu gën a mën a taxaw jàmmaarloo nag ak lenn loo xamante ni ñoom ñooy ci askan bi nga xamante ni nag liñ doon def du lenn lu dul droit de marche goo xamante ni constitution bu Sénégal moo ko daal di nag régir ci koo xam ne am nga lu la métti nga tax